yaa يقيني يقيني شك في سر والعلن سنا salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëriñ bi ñu ngi lay siyaar. di la ndokkalee tur bi. Mamadou Diouf taalibe sëñ Xaadim Astako Mbacke bu Sali. noo gisee te ñaari rakk yi. ñaari rakk yi macha allah ñaan fi ak année fii lañ koy defee te naan ñaan yàlla di ko defee fi toujours di naan Sëñ Tuubaa daal mu ñuy may kattan ak yërmaan ak njégal ak sutura ñu ko fiy defee toujours ñun waa Fatick. amiin amiin ah. képp ku fi taxaw. yal na aajo yu faji ci sëñ Touba ñaari raka yi nga xam ne nag moo ñu détaché maanaam moom la tubaab bi doon bañ te sëñ Touba moom la julli ndar moo ñu mooy suñu indépendance daal waaw. mais noo dundee waañ bi. waañ bi daal macha allah lépp mot na waaw lépp mot na waañ bi moom lépp mot na waaw. salaamaaleykum sëriñ bi. ñu ngi lay siyaar di la nuyu waa Mindiss TV ñoo la seet si tey di la wax tey si ñaar raakari tey noonu lañ koy dundee. waaw xanaa xanaa di sant suñu Tuubaa bu baax di njukkal Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muriidiina di amaat mbégte bu baax bi ñu yàlla kàttanalee ba ñu fekkee bis bi xam ne mooy bis bi nga xam ne moom la suñu Tuubaa julli woon bureau fa Ndar ñu koy màggal àddina bi yëpp kenn ku si nekk ñu nag ñu amoon ndigal. sëñ Saliou di ko màggalee fii si kër sëñ Tuubaa fii si Fatick moo waral tey taxawaay bi nga gis mbokk taalibe yëpp wax dëgg neex yàlla ñu bàyyi seen yite ñëw jàpp si ngir dundal li nga xam ne nii mooy ñaari yi nga xam ne nii képp kuy jullit war na ko màggal ngir santale ko si baam ba Bamba Xaadimu Rasuul. jërëjëf kàddu yi de moom macha allah rëy na trop yaatu na lool parce que fii moom kenn amul ku du sëñ Tuubaa mais nan ngeen dundee waañ bi. waañ xanaa waajal comme ni ñu doon waajalee waañ yi rek mooy e, jaayante xëy nekk si liggéey bi di raxas ak dëbb fas yéene togg maam ay ceebu ganaar ndax ku nga xam ne jamono jii moom mun naa ne ay ceebu ganaar daa xew te boo gisee ginaar yi nii nga xam ne nekkut ne ay ginaar yu ndaw wala e, ay fukki ginaar ndax boobu ba léegi mun naa ne depuis 9 ba léegi ñoo ngi saaf ay ginaar di teg ngir waajal añi daal bëgg daal incha allah képp ku fi ñëw rek maanaam ngi xewlu bu baax a baax a baax ba sant ko bu baax a baax. macha allah yal na yàlla yokk xéwal yi dafa ñu taw féex kàddu yi rëy na rafet na trop macha allah jërëjëf. asalaamaaleykum soxna si ñu ngi nuyu di lay siyaar ñu ngi gis seen taxawaay si waañ bi di la laaj lan nga gisee tey si ñaari rakka yi. ah waa salaamaaleykum maa char siyaar ñëpp di wax ne ñaari rakka yi tey xanaa am contentement rek wax dëgg yàlla ndax euh, fekke ko te tal ko rek ak cant la ndax bés bi moom dañ koy war di sant dañ koy war di feete chaque jour ndax euh, sëriñ Touba daf ñu ci sigil sagal ñu ci. kon nag duñ def lu dul di ko sant rek lépp lu ñu mën ak lu ñu mënul yëpp ñu def ko ci. salaamaaleykum soxna Fa maa lay siyaar da soxna Fa lii de mbégte la mais loo gisee tey ñaarak ci fatik Fatick. macha allah mbégte bi ngeen am moom lañu am ñu nit ndax man maa ngi soog a ma ñoo gis ni ngeen ma teeroo ma ay xar yu bees <laughs> macha allah gis liggéey bi macha allah mu nekk lu rafet. tax yoonu sëñ Tuubaa moom ami tànk ginnaaw tànk kanam rek la am ba tax na daal rafetlu naa ko macha allah liggéey bi rafet na di ñaan yàlla mu may ñu kàttan ak doole ñu koy mën def chaque année rek incha allah. rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ñoo euh, ngi sant yàlla di julli sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen sant bu baax yéen waa Mbindis TV yim ko jaral ngeen ñëw fekkee suñu bés bii nga xam ne euh, bésu sëriñ Touba la muy am fii ci kër sëriñ Touba euh, kër Serigne Touba ngeen ngi ma laaj nag cosaanam naa leen xamal ne man 1970 laa dem armée man bi may dem armée kër gi taxaw na ñi ko taxaw nag ay mag la woon mag ñooñu nag kenn nekkatu fi waaye yal na yàlla yal na seen àllaaxira dàq seen àddina mun naa ci lim ku mel ni Serigne Fallou Ndiaye mun naa ci lim ku mel ni eh, Alaaji Touba mu kër gi nag moom ah sëñ Abdoulahat sëñ Abdoulahat moo leen ci joxoon ndigal ñu amal ko fi wax li fi war am ci néeg mu toll ci fukki néeg ak benn ak julleekaay barabu julleekaay ci loolu daal mooy mooy cosaani kër gi ñu deen xamal ne kër gi nag amoon na mosoon na am ay yàqu-yàqu waaye ndimbalal borom bi ndimbalal borom bi euh, ku ñu am fi doom ju baax muy Cheikh Kanté mu Alaaji Dieng Gueye jàppale ko ak mbokki taalibe yëpp ñoo ñoo defaraat clôture bii ngeen di gis nii. alhamdulilahi wa kafa wasalaatu wasalaamu ala nabil Moustapha wa ridwanullahi tabaraka wa taala ala xadil Moustapha cheikhna cheikhna Ahmadou Bamba ñoo ngi yëkkati kàddu yu nuyoo kàddu yu ziyaar kàddu yu ndokkeel di ca jiital sëñ Tuubaa Cheikh Muntaxal Bachir di ñaan yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér mot li mboolem yéene yi mu am ci liggéeyal waajur yi ak maam yi te ànd ko ak moom di yëkkati nuyoo bu ñu tollee ak ziar bu ñu toll di ko jëmee suñu wëjur alhaaji euh, Modou Bopp di représentant xalifa général di murit di yëkkati suñu kàddu nag ci turu jëwri nii bay moodu Bopp yi nga xam nii ñooy taxawu liggéey bi suñu waxee jëwri ni bay Modou Bopp mooy mag ñi doon ànd ak moom te tey mu def bi bay suñu Modou bay mbay ba ka représentant xalifa général di bay Fall à passage ñu ngi koy waat bu baax a baax a baax ba ci ñaar rakk yi tey mbooleem fu Fatick nekk doomu Fatick daayira yi ànd koog waa àll bi fédération bi ñëpp ñoo fi taxaw tey taxaw fi taxawaay bu rafet am commencé ko jàng alxuraan jàng fi alxuraan ju bari biñ ñu paree alxuraan ñii nekk ci dur si ñi nekk ci sikkër si ñi nekk ci waañ ñi nekk ci liggéey bi te incha loolu lañ fas yéene ba ngoon jot loolu nag li ci sedd suñu xol te dal dalal suñu xel lool mooy wóor nañu ne ndaw ñi teg na seen tànk fa jamaam yi tegoon te incha allah fas yéene ci gannaaw suñ moodu bopp ci ndigalal suñ muntaxaa nekk benn say moo tax ñu ngi ci tàllal loxo ñëpp leen jaajëfal di ñaan yàlla defal ñu tawfeex di amaan mbégte bu baax di jaajëfal bu baax waa ministre yi ci taxawaay bi rafetlu na ci mat na asalaamaaleykum wa rahmatulah waaw asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokku taalibe yëpp Sénégal wërngal këpp ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax euh, ñii li ñu wax man duma ci dellu siwaat li may wax rek dafay jëm ci kilifa yi nga xam ne ñoom lañu bokkal région bi muy gouverneur de région préfet de département commissaire central commandant de ak ñi nekk tribunal yëpp képp kilifa boo xam ne nekk nga ci département Fatick wala région Fatick na ngeen xam ne communauté Mouride am nañu mbégte ci yéen ñu leen di sant di leen gërëm di sant nag monsieur le maire Matar Ba ndax li tax bi Serigne Cheikh Jëmb Fall wàccee liggéey moom ci boppam dafa yónnee sama kër ndaw muy Muntaga Baro mu am lu mu indi loolu yég yëg la kon ñu ngi ko ci sant di ko gërëm da ko bokk ak man li nga wax baabu noonu la da ko bokk ak man ndax moom taalibe la ba pare waaw kon maa ngi ko ci sant bu baax di ko gërëm saisir occasion bi sant ko bés bii nag ni mu màggee a ah, moom moo xam li mu bëgg yal na màggee noonu ci say barke Seydina Muhammad di ko sant itam bépp koo xamante ne responsable nga nga nekk fii ci biir dëkk bi maa ngi lay jagleel cant googu ndax Cheikh moom ci boppam bari am na lu mu ñu defal ñoom Mbaye juuf ñoom semu juuf ñoom Sitor Ndour ñoom Mame Mbacke Ndiaye ñoom ñëpp du ngeen baal ma ñi ci des kenn ku ma ci tuddul na nga xam ne tudd naa la